di téere bi nga xamante ne moom la jox suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk miracle mu nekk mujiza nekk téere woo xamante ne lu jiitu ñu di ko jox yonent bi amul wenn téere bu toll ni moom mu nekk alquran la ñuy jàng di ko dundu mu war doon système de vie ñeel képp ku gëm yàlla gëm yenent bi nga war a jël alquran mu nekk sa système de vi donte munoo ko jël lépp waaye nanga góor góorlu ci la tolloog sa kemtalay kàttan nga installé loolu ci sa dund su ko defee nga mun a dundu ci jàmm ba tax na jàmm jooju la ñuy sàkku fa suñu borom di ko ne allahumma anta salaamun wa minka salaamun ilayka yacuudu salaam fa salaam bisalaam wadxilna aljannata daaraka daaru salaam bur yàlla yow min am jàmm mboolem xeetu jàmm yi mboolem xeetu yiw yi ci sa nguur lañu nekk yaa ki yaay ki moom ñu ngi lay ñaan yàlla nga ko dottil suñu kaw ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu may ñu dund ci jàmm yàlla nga ñu may jàmm ci suñu réew ba ñuy dund yàlla bu ñu dee di dikkal nga def ñu ñuy faatu ci jàmm ñu dellu ci yow mi nga xamante ni yaa yore jàmm keroog bés pinc nga tàbbil ñu ci këru jàmm ba nekk fa yow di arjanna amin ya rabbal alamin ndax yonent bi moo ñu ne addu'a huwa al ñaan yàlla mooy yuuru jaamu yàlla bu dee jaamu yàlla jëmm la ñu ne ñaan mooy bopp wi ñu ne nit ki bu tànkam amee tolof tolof mën na dox bu loxoom amee tolof tolof bete mën bi amee tolof tolof mën na dox waaye bopp bi moom bu nekkul ci jëmm ji daa mel ni kooku pour mu dox dina doon du jafe da mën a dund sax bay dox ba tax na ci yeneen riwaaya nga dégg yenent bi sallallahu alayhi wa mu di ñu wax ne addu'aau muxul ibaada waaw addu'aau ñaan yàlla toroxlu suufil sa bopp xerewlu ci kanamu yàlla toroxlu ci kanamu yàlla wàccee sa garaat ak sa martaba ci kanamu yàlla tallal say ñaari yoxo di ko ñaan di ko ñaan ci lang nga tële la nga mën lu kenn du mën ci yow nga xam ne yàlla rekk ku mën allahu akbar loolu yonent bi daf ne mooy yuuru ñaan mooy yuuru jaamu yàlla ñaan yàlla mooy bu dee jaamu yàlla bopp bu am yuur la ñu ne ñaan mooy yuur wi bu dee jaamu yàlla jëmm la ne ñaan yàlla mooy bopp bi ci beneen xadis mu ne ñu addu'aa ñaan yàlla huwal ibaada loolu mooy jaamu yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg ba tax na buur yàlla tabaraka wa ñaan woowu yonentu bi tegtal ñu ne mooy dëggantaan jaamu yàlla ci téere bañ ka ko te moy mooy alquraan mu tudd kitaab yàlla permettre ñu mu jox ñu ndigal ngir ñu duggu ci àllum alquraan bu dee àll la wala ñu dugg ci géeju alquran bu dee géej la wala ñu dugg ci magasin wu alquran bu dee magasin la ñu dugg ci béréb yañ leen tuddal nii bu dee manees nañoo melale alquran ak béréb yu ñu leen tuddal nii yàlla permettre nañu jox nañ ñu ndigal ñu ne ñu mu ne ñu dugg leen ci biir alquran ngeen jëlee fa la nga xamante ne moy la leen di njëriñ seeni àddina waaye moo leen di tegtal la nga xamante ne mooy la leen di njëriñ keroog bés pénc ba tax na bu ñu demee xool ci suratu Saad ci aaya juróom-ñenenteel bi juróom-ñenteelu aaya bi aaya nuuf dinañ fa fekk bur yàlla mu ne ñu kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun li yadabbaru ayatihi wa li yatadakkara ulul albaab ca suratu Saad aaya nuuf mbokk yenn jaam yi yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot réew mi fm 97.5 ci waxtaanu fajar ba ngeen di wéttalanteeg ñun noo ngi ñaan yàlla suñu borom lépp lu ñu dégg ci waxtaan fajar bay jaar ci daara ji yal nañu ko yàlla kattanal ñu war ko a mën a jëfe xeetu ndigle yi yal nañu ko yàlla kattanal ñu war see war a mën a tënku waaye mboolem xeetu tere yi yal nañu ko yàlla soreel amin ya rabbal alamin ba tax na buur yàlla daf ñu ne kitaabun téere la boo xamante ne anzalnaahu ñoo ko wàccee ci yow yonent bi ilayka mu doon la ñu wàccee ci yow mubaarakun mu di téere wu am barke waaye nag li yadabbaru ngir ñu war kaa mën a settantal ayaatihi kawtif ya fa nekk waaye tamit boo li yatazakkara ngir ñu war a mën a waaru ñu war a mën a xelaat ulul albaab borom buntu xel yu yanji ñu war see war a mën a xelaat bi ñu am lañu ñu namp ci ayatul quraaniya ñu war ko war a mën a xellil nit ñi ci pinc wi imaam yi war koo waxtaanee ci manaabir yi asaatija yi man ka waxtaanee ci rajo yi ak ci télé yi sëriñu daara yi war kaa mën a jàngale ci daara yi sëriñu daara yeeg asaatija yi man koo war a mën a firi ci géewu tafsir yi su ko defee kenn ku nekk di ko véhiculer ci anam bi nga xamante ne noonu la ko yàlla yombalee su ko defee jaamu yàlla yi ñu war si war a mën a manqué la nga xamante ne mooy la leen di njariñ ba tax na ñu ci daara vacances nañ leen jël xale yi yóbbu leen fa ñuy jàngee alquran fa ñuy xamee seeni diine bi okkool tijji ñu boole ñaar ñi ñu di ko jàng su ko defee ñu mën a installer ci suñu tu tànk yi loo xamante ne ëllëg ci biir buñ fi nekkul ñu war a mën a tàllal seeni loxo ñuy ñaanal seen wayjur yi ñu naan allahumma gfir lana wa li walidina wa lil muminina wal ñaanal seeni wayjur di ñaanal yàlla di ñaan yàlla way gëm yàlla ñi di ñaan yàlla yàlla jéggal seen wayjur di ñaan yàlla suñu boroom mu jéggal way gëm yàlla yu góor ñi ak woyu gëm yàlla yu jigéen ñi mu doon xam-xam boo xamante ne dipp ba ñu nekkee à bas âge lañ leen koy tàmmal ñu di leen jàngal alquran ñu di leen jàngal xadis yi yonent bi sallallahu ñu di leen jàngal doxalinu mag ñu baax ñi fi nekkoon moo xam ne yàlla bindee jëmm góoru yàlla yi seen trace yu mucc ayib yiñ fi bàyyi seen trace yu sell yi seen màndarga yu baax yooyu ñu jàngal leen leen ko waaw ndax suñu mag ñi kenn du ñoom rahimahumullahu taala yal na leen yàlla yërëm seen inspiration lépp ñu ngi ko teg fa yonent bi jaaroon ak saxaabaa mi ridwanullahi ajmain ndax ñoom dañoo déggoon ne wa ataakum rasulu fa xuzuuhu ba tax na kenn ku nekk ci ñoom dañoo jeexoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa ba tax na boo demee seen njeexintal xool seen bind ak seeni doxalin ah boo gistoo de dinga gis lu bari bari bari bari waaw la dëppog la yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa yal nañu ko yàlla feyal ba na bur yàlla ne yonent bi ne kitaabun téere la boo xamante ne mooy alquraan bi anzalnaahu ñoo ko wàccee ci yow ilayka mu doon langa nga nekke waaw mu doon téere boo xamante ne man yàlla maa ko wàccee ci yow waaw moo tax mu ne ko kitaabun téere la anzalnaahu ñoo ko wàccee ilayka ci sa jëmm ji mubaarakun mu di téere bu barke téere bi barkeem tax na ñépp ñépp ñu ko safoo woon képp ku doon xaadimul qur'aan képp ku nekkoon mbindaanu alqur'aan ci jamono tey sa kër mu ngi samp boo wootee ñu wuyu la naw nañ la jox nañ la nopp parce que dafa am la nga faale woon dafa am la nga safoo woon dafa am la nga nekkaloon jaam waaw téere bi képp ku ko nekkal jaam nga di ko promouvoir di ko yëkkati di ko faale di ko safoo di ko ndamoo du ñàkk sa trace yàlla dina ko tii bi képp ku ko gis xam ne ñi nitu alquran lañu te yonent bi wax nala la ci maana xadis ahlul quran hum ahlullahi wa xaasatuhu ñooñu alquran ña safoo alquran ña ñooñu ñooy ña yàlla safoo ñooñu ñooy ña yàlla tànn ñooñu ñooy ña yàlla féetali boppam ba na moo tax yàlla ne ko mubaarakun da di téere bu am barke waaw li yadabbaru ayatihi bokk na la tax ma wàccee ko ci yow ngir ngeen xuusandi bu dee manees nañoo dëppee alquran ak géej ngir ngeen xuusandi ci biir géeju alquran ngeen nappe fa la nga xamante ni mooy aaya ya fa nekk ngeen war kaa war a mën a gëstu ngeen def si recherche pour seen àddina mën a jekk waaye seen àllaaxira mën a ñoŋ waaw li yadabbaru ayatihi pour ñay dugg ci alquran di fa def recherche di fa def investigation ngir di xool aaya yi na mu nekkee ak kawtif ya fa nekk képp ku dugg ci géeju alxuraan dinga gis ne ndek yàlla ma sant ne nañu dugg ci géeju alquran wala ci àllum alquran ñu géem a def recherche yàlla moomu moo yombalal ñu am lañ fay jëlee comme lañuy ñuy njëriñ waaye nag ñaareelu groupe ya nga xamante ni yàlla permettre na leen ngeen ñoomit ñu bokk ci wali yatazakara ulul albaab boroom xel yu yanj yi ñoomit nañu manqué ci alquran bi la nga xamante ne seen xel da koy manq ba mu fees dell waaw boroom xel yu yanj yi yàlla ne yéen bokk ngeen ci ñu war a dugg ci duusu géeju alquran manqué ci la nga xamante ne bu ngeen ko manqué ba seen xel yi fees del ngeen dem yàbbi ko sotti ko ci manaabiri waaw yowmal jumaa imaam yi yéeg ci minbar yi tas fa aaya alqur'an ya ñu ci géeju alqur'an asaatija yi na ngeen dem ci école yi ngeen tas fa ngeen yebbi fa waaw la nga xamante ne manqué ngeen ko ci géeju alqur'an sëriñu daara yi yéen lépp li ngeen manqué ci géeju alquran yàlla nee na dem leen ngeen yebbi ko ci boppu ndongo daara yi moo tax yàlla ne wali yatazakkara ngir ñoomit ñu war a mën a fàttali ulul albaab boroom xel yu yanj yi xel yu yanj yooyu noonu manqué njëriñ ba tukkee ko ci alquran buur yàlla tabaraka wa taala nee ngeen dem yebbi ko ci ña nga xamante ne ñoo ko war a soxla su ko defee yan nañu yàlla boole te ñuy manqué njëriñ ci géeju alquran wala ci teenu alquran wala ñuy taxani ay njëriñ ci àllum alquran ngir ñu war koo mën a teg si pénc bi waa pénc bi man ko war a mën a jëfandikoo amin ya rabbal alamin bokk na ci ci lañu bëgg manqué ci géeju alquran ci aaya ba nekk ci suratul zariyat buur yàlla tabaraka wa mu di ñu wax ci maana aaya bi mu ni ñu wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yacbuduuni déet ma jinne yëg doomu aadama yi ci lenn taxut nag lu dut ñu jaamu ma ay li yuwaxiduuni ngir ñu wiital ma ñu bañ ma bokkaaleek dara kon yàlla dafa wax ci aaya bi ne wa maa xalaqtul jinn binduma jinn ci dara lu dut illaa li yacbuduuni ay li yuwaxiduuni lu dut ñu jaamu ma bi maanaa ñu wéetal ma kon jinn yi ne daleen bind dong ngir ngeen jaamu ko ngeen wéetal ko bañ kaa bokkale dara mu teg si ne wa maa xalaqtul ins illaa li yaabuduuni binduma doomu aadama yi tamit ci dara ludut ñu jaamu ma kon doomu aadama yi yàlla ne bindu leen ci dara taxut mu bindi leen ludut ngeen jaamu ko jaamu bi bi maanaa moy li yuwaxiduuni bi maana ngeen jaamu ma waaw ngeen jaamu ma wéttal ma bañ ma bokkaaleeg dara bañ ma bokkaaleeg lan moo tax yàlla ne wa maa xalaqtul jinna wal ins binduma jinne yëg doomu aadama yi ci dara dara taxut ma bind leen lu dut illaa li yacbuduuni lu dut ñu jaamu ma kon jaamu yàlla da di war ci jinne jaamu yàlla dadi la war ci doomu aadama yi wàccul kenn nag waaw kon nañ leen ko ñaan la yonent bi wax saxaabi bi mu ne ko dama la bëgg a dénk loo xamante ne bu ko fàtte mukk jamono ba nga noppee ci say julli moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu wax saxaabi bi ki ko bëgg a xam nag ñu may nopp ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji ci waxtu wi daf ko ne inni uallimuka man de bëgg naa laa xamal loo xamante ne ah saa yoo noppee ci say waxtu yu julli saa yoo noppee ci say waxtu yu farata del wax ne allahumma ainni ala dikrika wa shukrika wa xusni ibadatik waaw ndax buur yàlla tabaraka wa taala dong fi nekk ki mën a jàppandalal doomu aadama bi ngir mu nekkee la mu ni moo ne bi sallallahu alayhi wa dane sahaabi bi ne saa yoo jullee ba noppi ñaanal yàlla la ma la bëgg a wax ni mu ne ko dee ko wax ne allahumma ainni ala dikrika wa shukurika wa xusni ibadatik mu ne buur yàlla la ma la bëgg a ñaan yow dong yaa man yaa ko am ci sa nguur la nekk kon duma ko sàkkoo ci keneen ndax amu ko duma ko sakkoo ci neneen ndax nekkul fen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii la wax muaz dane yaa muaz wallahi inni la uhibbuka usika ida ne ko yaa muaz gëñ naa ci yàlla ne man ku la bëgg la sopp naa la lool usiika ma ngi lay dénk yaa muaaz yow muaaz laa tadaan ngallawaay bul musa sàggane fi duburi kulli salaatin ginnaaw waxtuy julli ba nga joxe ba pare an taquula ngay wax ne allahumma buur yàlla a inni ma lay ñaan yàlla nga jàppandalal ma yàlla nga ma yombalal ala dikrika ma di la tudd saa nga ko yombalal sama làmmiñ ma di la tudd saa su ne wa shukurika ma di la sant saa su yàlla nga ma ko yombalal wa xusni ibadatika yàlla nga ma yombalal may rafetal mboolem xeetu jaamu yàlla yamalay jaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi daa am sahaabi ba mu ne yow Muaz wallahi inni la uhibbuk gëñ naa ci yàlla ne ku sopp la man waaw yonent bi képp kum ne ku sopp la yow ya ëpp cofel ci ñalay lay sopp képp ku yonent bi ne ku sopp la kooku amul kenn ku koy sopp waat la toll nii ki ko sopp sallallahu alayhi wa sallam yal nañ ñu ko yàlla fayal waaye yal nañ ñu yàlla boole te ñu yenent bi di sopp sallallahu alayhi wa sallam mu ne Muaz ne wallahi géñ naa ko ci yàlla ne inni la uhibbuka man ku la sopp la aussi ka ma lay dénk dina laaxee biir yaa Muaz yow Muaz laa tadaan bul musa sàggane fi duburi kulli salaatin ginnaaw bi nga joxe waxtu yu julli an taquula ngay wax ne allahumma buur yàlla ainni yàlla nga ma jàppandalal yàlla nga ma yombalal ala dikrika ma dila la tudd saasu ne ma di la fàttaliku saasu ne ci xéwal yang ma defal ma di la tudd saasu ne sa tur doon sama singamu gémmiñ saasu ne may wax astaghfirullah subhaanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar ma di tudd say tur saa su ne mu nekk sama singo mu gémmiñ yàlla nga ma ko jàppandalal waaw ma dëkkee di la tudd rek wa shukurika yàlla nga ma jàppandalal ma di la sant ci xéewal yang ma defal xéewalu ñaari loxo yang ma may yàlla nga ma yenkeewal ma di ci sant saa su ne loxo bi bañ a def dara lu xaraam loxo bi bañ a tàllal di ko jimi fu xaraam loxo yi bañ a tuur deretu kenn loxo bi daal bu du la muy njëriñ nit ñi bu mu musolor kenn yàlla nga ma may ma di la sant si ñaari tànk yang ma defal ñaari tànk yang ma may ma di ko doxee yàlla nga ma may ma di la sant yàlla nga ma yombalal ma di la ci sant ma di ko doxee di dem ci jàkk yi ma di ko doxee mbokk ma di ko dox di jëm ci faj soxla képp ku am aajo waaye yàlla nga ma yombalal tamit may rafetal mboolem xeetu jaamu yàlla yang ma sant ngir ma jaamu ko yalla nga ma may ma di ko rafetal donte du méngoo ak ni nga ko waaye ma lay ñaan yàlla nga ma may sama kémtalay kattan na ma mën a rafetale jaamu yàlla yamalay jaamu yàlla nga ma may kattan yàlla nga ma may may xol ak xel ba ma koy rafetal sellal ko ngir yow don nga tax ma di ko def lii la yonentu bi dénk sahaabi bi di muaaz bun jabal radiyallahu anhu kon ñu nañ leen géem a mokkal ñaan bi gannaaw ba ñu julli suñu waxtuy julli ba pare balaa nga nekk fa nga toog di jëf ay jëf di mel melokaan woo xamante ne ah est-ce que noonu la yonent bi jàngale kon yonent ba nga xamante ne moom la yàlla yónn ci xeer bi sallallahu alayhi wa mooy ki jàngale julli ak ginnaaw julli la war nekk ci ginnaaw julli ba tax na mu saxaabi bi ne waat naa ci yàlla ne ku la bëgg la ma ngi lay dénk yow Muaas bul sàggane bul musa bay gannaaw waxtu yi farata julli ba nga joxe ba pare nga ñaan yàlla ne ko allahumma ainni ala dikrika wa shukrika wa husni ibadatik allahumma ainni ala dikrika wa shukrika wa husni ibadatik lii la yonent bi wax muaas bun jabal radiyallahu anhu ne ko bu ko musa sàggane bu ko musa fàtte te bu ko musa doyadal bu ko musa bay saa yow jullee ba noppi na nga tàllal sa làmmiñ nga tudd baat yamala la bëgg a wax ni ne allahumma buuri yàlla yow mi ma bind moom ma yow mi ma tàggatal samay cir yama lay jaamu lay ñaan a inni yàlla nga jàppandalal ma nga yombalal ma ala zikirika ma di la fàttaliku saa su ne ci sama jëmm ji ma di la fàttaliku saa su ne ci say kawtiif ma di la fàttaliku saa su ne ci la nga xamante ne mooy la ma tiim mu doon asamaan su yaatu yi ma di la ci fàttaliku kawtif ba fa nekk waaye ma di la fàttaliku ci suuf ba ma nekk di dundu ak lafa nekk ci xëytu kawtif yàlla nga yaatalal sama xel ak sama xol ma di la ci fàttaliku saa su ne waaye yàlla nga ma yombalal tamit ma di la sant ci xéwal yang ma defal xéwalu tànk ba ma jox am na koo xamante ne amu ko xéwalu loxo bi ma jox am na koo xamante ne amu ko xéwalu ñaari bët yang ma barancel am na koo xamante ne amu ko waaye yàlla nga ma yombalal ma di la sant ci xeetu xéewal yan ma defal waaye ma lay ñaan bi léegi yàlla nga ma yombalal ci ma di rafetal mboolem xeetu jaamu yàlla yan ma sant ngir ma jaamu la ko yàlla nga ma yombalal ma di ko sellal di ko defee comme la méngoo ak sa bëgg-bëgg donte lottu naa di ko defe comme noo ko bëggee waaye ma ngi lay ñaan yàlla nga ma yombalal ma def ko defee ni amin ya rabbal alamin kon ñu nit ñu ngi nii joxe nañu suñu waxtu yu julli bu njëkk ci bés bi mooy julli fajar bañ doon def ci jàkk ji kon képp a koo xamante ne tisbaar fekk na la ci jamono gannaaw bi nga joxe waxtu yu tisbaar ah la yonent bi dénk ci saxaaba bi la yonentuy dénk sahaaba bi di muaas bun jabal radiallahu anhu mooy ñaan bi kon ñu nañ ko jël ñu di ko ñaan jamono bu ñu joxe waxtu ba nga xamante ne mooy faratay julli di ko ne allahumma ainni ala dikrika wa shukrika wa husni ibadatik amin ya alamin nañu yàlla jàppandalal la xadis bi di wundu yal nañu yàlla jàppandalal la xaddis bi di tekki amin ya rabbal alamin mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu war a jébbal béréb bi ña war a joxe xibaar ci nasaraan ñaan yàlla suñu boroom tabaraka wa taala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana allahuma ya rabbi aati nufuusanaa taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaaha anta waliyuha wa mawlaaha fa nicmal mawla wa nicmal nasir allahuma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih illahumma a'immatana wa wulata umurina allahuma ya rabbi ixfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin aqulu ma tasmaun wa astaghfirullaha lii walakum min kulli zambin fastaghfiruh baarakallahu lii walakum fi lqur'ani alazim wa nafaani allahu wa iyaakum bima fihi min al ayaati wa dikri alhakim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu